ki ngay teg fenn mooy ki lay laaj deux cent mille xëy suba ni la jeex na wicc tax sa fa naturel bi eh, may ma sama jàmm indi wala ma dem xoolal ñaar ñii kii da nga nopp mu lay dawloo safaak marwa kii dalaa bëgg te yàlla tax di la sëyal te yàlla tax du fekke sa sa sutura bu xawee ko du ko fekke dangay ngay yónni yàgg ba kii jur kii jur nga seetaan ku ñulug sa jëkkër yàq say doom pexe amu ci ñaari jigéen bu ñuy wujje kiy sëy te yàlla tax conséquence bu ne mu dund ko ak ki ñëw ci neex-neex bi rek pour roñ alal ji di lekk sëyee nu mu ko neexee dangay yónni yàgg ba ñoom ñaar ñu jur indi yow tam <laughs> hal jazaa'ul ihsaani illa ihsaan looloo fi am lii moo fi am leneen amu fi kër yonent bi daan na yëngu te ay jigéen ñoo ko daan yëngal yonent bi dañ koo teg pression biir këram jigéen ñi fatt ko <laughs> yonent bi dañ koo teg pression biir këram ba mu roñ ay bagage am génnee sac à main moom yonent bi dugal jàllaabeem dugal ay dàllam dugal mbaxanaam tëj sac bi diri valise moom yonent bi génn kër gi ne 30 jours du fi dugg <laughs> yow mi ñuy merloo ay 2 jours ak 3 jours nga bëgg a xaru Seyduna Muhammad génn na këram gàddaay kër gi ne du fa dugg fanweeri fan. weer la wax weer dani soxna yi maa ngi dem fi ak weer billahi alladi laa ilaha huwa du ngeen ma gis yonent bee ko def foo ne bee ko def jigéen ñi ko wax mu ne la fii ak weer du ngeen ma teg bët damaa sonn ci seeni caprice mu ne ko foo jëm mu ne ca jàkka ja laa jëm dem defi i'tikaaf mooy tëju ci jàkka ji di jaamu yàlla rek parce que yéen ku leen topp ngeen dofloo ko góor gu ci ñàkk fayda problème mu dépression ngay am moo tax borom bopp ndaw warul takk ñaari jabar borom bopp bu ndaw warul takk ñaari jabar ñaari jabar pour nga am ko bopp bu ngan nga war a am attan problème yëpp bopp bu ndaw di takk ñaareel.